dal leen ak jàmm mbokk internet yi soxna yi sëriñ Cheikh Béthio Thioune yewoon gën nañu booloo ñi doon ruuma laata ñàkk déggoo ci biir soxna seex Cheikh Béthio yewoon daal jamono ji nañu jàpp ne ab njumte gu rëy la ndax dara amu ci bu ñu sukkandikoo ci kàddu yenn ci wala sax ci ay aydaakuun yi nga xamante ni jot nañu waxtaan ak ñoom ñu ngi xamante ne mbirum ñàkk juboo gu ñuy wax ci diggante soxna Cheikh Béthio Thioune yewoon daal du dëgg te ñi koy wax sax dëgg-dëgg mooy ñi nga xamante ni dañoo faree fële ca kuréelu sëriñ Saliou Thioune bu gël tàppe lenn ci Tantakun yi di fësal ne ña féete ca kuréelu sëriñ Saaliw Cuun Gueule Tapée dañu bëgg féewale njabootu sëriñ Cheikh Béthio loolee tax ba ñuy jëm di wax yenn ay kàddu yoo xamante ne dafay jaxase bokk na ci kàddu yooyu lu mel ni wax yi ñuy wax ne ci diggante soxnab sëriñ Cheikh Béthio Cuun ya woon dafa am ab ñagas-ñagas te li ko waral du lenn lu dul am alal yoo xamante ne cheikh bi bàyyi woon na ko fi ba tax ñoom ñooñu lee ñu di ko xëccoo bokk na itam ci kàddu yu ñu mel bu ci mel ni bi ñuy wax ne laata muy génn àdduna moom sëriñ seex Béthio Cuun dafa amoon ab mébétu jëndal kër kii di soxna Batoor fële foofee ca Bordeaux te boobulee kër buñ ko xaymaa ci suñu alalu bopp mu ngi toll ci trois 300 millions boobulee xaalis moom la soxna Aïda Diallo daal di aakimu loolee waral ba moom ak yeneen soxna yi daal daanaka jubóowuñu waaye nag kaddu yooyu yëpp bu ñu sukkandikoo ci yenn ci cantaakoon yi dara du ci dëgg ndax tey jii dëgg-dëgg ci la soxna seex Béthio Thioune ya woon gën a booloo gën a déggoo li koy firndeel di amal gu ñu amal ci lu yàggul dara benn cant gu mag fële ca Médinatu Salaam à Mbour ca Mbour ci boobule cant ñoom soxna Cheikh Béthio Thioune àndoon nañu booloo def benn say daanaka sax ànd nañu daal di séddoo ay kàddu wane seen pas-pas ci cheikh bi ànd ak loolu daal ñu àndandoo daal di def dukkat yu am solo lii lay di firndeel ne dëgg-dëgg ñii daal dara xewul seen diggante jàmm ak salaam ba tey ci boobulee jotaay soxna Aïda Diallo ci na ma ko tàmmee di def jot na daal di génnee lu takk loola ci teraanga daal di koy jébbale ñaari wu jëm ya woon te bokk na ci teraanga yi nga xamante ne jot na ko jox ñaari wu jëm ya woon lu ci mel ni ay véhicule hors yi maanaam ay daamar yu yanja yanj yoo xamante ne nii daanaka taalibe yi ñoo ko joxoon mu jël ko daal di ci sedd ñaari wu jëm ya woon jàmm ak salaam teg bànneex ak teraanga gi dox ci diggante soxna yi tax na dëgg-dëgg ñu war a mën a xam ne ñoom ñëpp ci seen diggante amul fa xew ginnaaw si ay kàddu yu fi jógoon di leen féewale dina fi nekk di sëñ Jiili Mbàkke ibnu sëñ Moustapha ibnu sëñ Moustapha Mbàkke ñu ngi koy siyaar wér di siyaar sëñ Jiili Fall ibnu sëñ Moodu Ablaye Fall ñu ngi koy siyaar wér wér di siyaar sëñ Abdou Lahad Samb ñu ngi lay siyaar wér wér di siyaare sëñ Aliou Niang Touba bàyyi ko ba Touba ñu ngi lay siyaar wér di siyaare sëñ Aliou ñu ngi lay siyaare bu yëpp di la dalal di siyaare Bakka Diallo di frère si Soxna Aida ak Soxnaam Soxna Sile Diallo ñu ngi lay siyaare bu yëpp di siyaare mbokku taalibe yi ñoo ngi siyaare ñëpp. mu mel ni am na mbokku taalibe yu bàyyi ko ba bitim réew ñii jóge France ñii jóge Canada ñii jóge ba Mali di teew si si bis bi rawatina waa Sénégal bépp rek ñëpp jóge nañ fa ñii bés bi nii jaam yi bàyyiwuñ kenn ñu ngi siyaar ñëpp ba ci seen saadu di jox kàddu bi jëriñ universitaire Ibrahima Ibrahima Sarr bàyyee ko ba Canada ñu ngi koy jox kàddu di leen jëfati Serigne Béthio di leen jëfati Serigne Béthio Serigne Béthio di leen jëfati gaa yi xanaa reeroo leen soxla yi man te ñëpp njëriñu si ñoo ngi siyaarewaat bu baax sunu layu tet yi soxna bëtër Saliou Thiour ak soxna Adja Saliou Thiour ñoo ngi lañuy siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay ñoom ngi nuyu bu baax seen gan yu tedd yi di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm di bëgg seen teewaayu suñu biir sang bi tey day ay taalibe yu lot ay taalibe yu am cofeel ci seen sëriñ ñoo dikkati waa daaru salaam Matlabul Fawzi ana waa waa daaru salaam Matlabul Fawzi ana ñaanal ci ba ngeen ñu ci boole ñoo ngi ñaan ngeen téyel lu ko te suufatal ñu ko ci seen yërmande sang bi tey day ni ma leen ko waxee seen taalibe yu baax yi ñi nga xam liñ leen bëgg te yemeew loolu ñu lekk dara ñoo dikkati dikkati ak manière am dikk nanu dikkin woo xam ne lii lu muy taaru taaru ku làmb sunu xol yi fekk ci lu lu sut bi mbagg sëriñ becc te loolu sëriñ bi na ko ñu am luñ ci tàmbali xam te di ci góorgóorlu nag wax dëgg yàlla di sàkku saa su nekk muy gën dëgër tey gën a dëkku day am Pastef day sell te cofeel lal ko moom day ni ko gaa yi gisee tey ziar bi eh, day siyaal day ziar bu coloré ci seen ndimbal moom oto bi ku ko gis mu taxawee nii di oto bu imposant di oto bu bu bëri ay mbir yu mu làmboo yoo xam ne dinañ ci ñëw. ndax bii daa bokk ci version ci gën ci dëgëraay ci option yu mu am ci rafetaay ndax lu muy niroo mel ni lu simple ni am caractère la te oto bi dafa gaaw coupe sport daanaka ci ci ci euh, ci ci ci li muy dawee am na coupe sport am na coupe gaaw daal tey moom leen leen présenté nii te day mat leeral ne waa Cofel loolu universel Idrissa Samb moo leen siyaaree oto bi oto bi day dugg dans le même registre que beneen diggante Kébémer ak 17 litres dañuy consommé 100 kilomètres bu nekk mu nekk oto bu bu am histoire bu prestigieuse maa ngi tubaab daanaka euh, boobu la ci yem waaw ñuul ndawal bi sell na rafet na oto bi mën naa dellu gannaaw te jaam jege si université bi mii mooy jébbal soxna si. clé eh, yi yooyu soxna si jox na ko soxna Adja Saliou Thioune day dugg ci gaamu comme yeneen diggante quatorze ak seize litres lay consommé tous les cent kilomètres oto bi zéro kilomètre oto bi mbokku taalibe yi nuuru daane yi Daaru Salaam mën dëbu tuuti nuuru daane yi biir ak bitim réew ñoo dem ba yëg daa mat daa jot mandargal mu cofeel sëriñ bi sëriñ bi mu waxtaan dem na sax ba benn jamono ndax boobu màggal gi taxaw na te buggoo leen woon dara ralentir nu buggoo leen woon dara divertir nu ngeen nañu dégg naa yéen wut oto nangam ni ngeen ko waxee bu naree gàllankoor màggal Sëriñ Tuubaa ji teg leen ko dëkk mën màggal oto boo xam ne agent bi département bi li ci topp yëpp cent cinquante millions sax doo ko fóon ñeex ngeen ne teg leen ko fa dëkk mën màggal Sëriñ Tuubaa ji sëriñ Béthio kenn la am na ci loo xam ne du xel xel du ko attan lu oto bu mel nii pratiquement bu ñu déplacé wu zéro kilomètre loo xam ne ne Sénégal amu fi ñun ñi lay taw fii Canada mu jógee fa universel Diaw Fane ndeysaan seen jàmbaat ji may dégg dafa am benn anecdote boo xam ne sax nga ko yi ñu si benn lu bëgg oto bi buñ bu ma ko jëlee ci concessionnaire bi koy yóbbu fi ñu ko war a def xam nga day am benn languette boo xam ne ne pour soleil bi nga koy yii noonu languette bi daa yéeg jéegi rek ni réer ñu nekkoon ci oto bi ñëpp wuyu ndax ñu dañoo jàppoon ni ñëw mbëkk ndax oto bi mënoo mbëkki daa am détecteur de somnolence sa dëgër koy yor bu doon kii nii oto day faj muy somnale oto day faj oto bu jógee hôpital da lay da lay wax ne da ngaa jóge hôpital boo inscrire mu faj du faj mais day def frein moteur day taxaw Allah jàngati naa kon li xew lépp sëriñ bi la lii xew sëriñ bi la sëriñ Béthio ñëw kondo sëriñ Béthio a toujours été au kondo moom man nga bi oto bi pour revenir rek waa bi bu intelligent soxna Aïda Saliou Thioune yàlla fi yàgg serviteur. kon nii ñu ngi lay siyaare ñu ngi laa teg di siyaare dëgg dëgg jëm ne sëriñ bi la jot léegi sëriñ bi la ñu ngi lay siyaare ban la siyaare siyaare nañu képp ko fi teew di ñaan nga yàgg lool te di sant ci kàddu yi ñu ma jox jublu ci yóotal leen suñuy kàddu cat ñun waa bitim réew sa taalibe yi nga xam ne ñoo féetee foofu di yi nga xam ni ñoo féetee Afrique ak yeneen continent yi ñoo am tawféex nga dimbali ci surop yi ñu surop ci liggéey mu liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii nga xam ni saa su ne dañu ci soññ dañu teg ci yoon màggal gàmmu gi di set amal suñu bésu bopp bi xasaayam Sëriñ Tuubaa yi ndigal yooyu nga xam ne Sëriñ Béthio moo ko tuddee feuille de route na mooy leen ndigal majeur wax ni nañ ko foog ndax Sëriñ Saliou daa bokk ci kàddu yi ñu ko mujjee wax neel sa taal bi nañu fonk màggal Sëriñ Tuubaa yi nañu fonk gàmmu nañu fonk xasaay Sëriñ Tuubaa yi mu ne man seen maa teg 17 avril ndax bu ñu amee sëriñ Saliou jotoon ñu kàddu yooyee daje gi ma daje ak moom moo ko waral mooy 17 avril kon nañu ne saa su ne nga ñuy nga a dem di ñu ci sóob di ñu ci amul guddi amul bëccëg bu ñu yëkkatee jëmu cofeel jëmal ci sa jëmm ji sax di ko université Ibrahima Sall waxee léegi nga nga fayal nañu te yenn yi sax mu jàll xam gi nga xam ni jëfi cofeel jëmal ci yow dañuy jëriñ maa waral nga bàyyi mu jàll waaye dara safu la ci message bi muy wax sax dafa mën a taxawaat ndax boobu ñun taalibe yi ñoom suñu yéene rek ne ñu ngi dem mën a màggal bi mooy màggal bu njëkk dinaa ba sëñ Ba jafe sa kër bi yàlla na ñu jëf jëf jafe la jëmal ci soxna si ñu koy ñu koy ñu koy waxaat naa ñëw suñu biir ba xalaat wax yi yóbbu ci oto bi ñu di ko dajale bi nga ko yëgee gis ni daa mel ni kon loolu waral màggal bi jëf yi xaw a yéex nga daal di tàng suñu kaw wax sa message boo leen la wax ne maanaam dara du dox sama diggante yi nga sëriñ bi ci màggal loolu gars yi aussi mu la waxandoo ku mel ni mu naan la màggal gi moo ñor waaw. te fekk liggéey suñu tubaab ñu am la nga fàtte sa jëmm. ci fàttali cantakun ya nekk ca Canada Bordeaux ak Sacré-Cœur dañu booloo daal di def ab teranga bu yaatoo yaatu jébbaloon ko jëwriñ universel di soxna Aïda Diallo yooyu lee woto moom la jël daal di koy mujj jox itam ci ay wu jëm yi nga xamante ne ñoom la bokkaloon nekk ak cheikh bi xanaa lii nag dëgg-dëgg mooy juboo àndoo ak booloo te Olof Njaay nee na tungu ne du teew ñuy nataal jërë ngeen jëf